it saako yi day jël avertissement. Siteu bi a dox ci kawam nga ca di leewaatoo diggante Papa Sow ak Siteu ba léegi bëre nañu 11 minutes di leewaatoo wala boog leewaatoo nañu 11 minutes. kaw participer ndeysaan oh voilà gis ngeen ambiance yi am biir kër Siteu ndeysaan Cour Goro ceeku na lamb ja jeex na Cour Goro ceeku na lamb ja jeex na Cour Goro ceeku na lamb ja jeex na Cour Goro ceeku na ndeysaan ambiance bi am biir kër Siteu oh ndeysaan borom yére bu weex bii ngeen di gis rek si télé ndeysaan ndeysaan ambiance bii ngeen di gis nii biir kër Siteu la fii la Siteu ngeen dee Siteu fii la ngeen dee bi ñu yëgee nouvelle bi ñu yëgee ko Siteu daan na Papa Sow ambiance bi ba léegi ñëpp a ngi yëg ndeysaan oh. kilifa gi ndeysaan papay Siteu la oh sëñ bi loo yëg lan nga ci sita Siteu. waaw Siteu sama doom yaay papaam. làmb ji foo ko seetaanee. seetaanee fii ci biir kër gi. waaw. Euh, naka nga ko dundee tiitoon nga wala jaaxle nga wala. si mu nekkee premier combat deuxième am ci combat laa wax békaay ne mu di ma laaj noo gisee Siteu ma ne Siteu bëreegul te ma ne cinq ans Siteu ma ko bés yaay fan ci kanam yi tey semaine so loolu moo nekk yii nag yii moom mosuma combat si bi ma laaj hmm. non mais bi arbitre sifflé mu yàgg lan nga doon xalaat non non ma ne hmm. du ma bëre Siteu sama doom la Uh-huh. ok fee bu mu jëlee xam naa. Siteu hmm. bu yaa mu jëlee bëri mu bañ gis mu bañ a gis gàllankoor mu nekk Siteu rek ak ay nitam. Hmm. dama defal li nga xam Siteu am Siteu. yàlla moo ko bëgg. mais ñu gis tey bi muy génn li ko topp ci gàllaa ci mystique. combat bi foog ma def a tàmm def ko ci bool bi. te hmm. Siteu rek rek rek ak Boré nii bàyyi ko man mu def. ah Boré bul ko ko conseillé. gis nga yi ñu koy conseillé bu dugg du si dëgg dara. Hmm. day talaay si te loo ko mun a wax du dëgg dara ku ma gis moom moo moo ko gis. Hmm. si te defe naa mooy jur bëre. dëgg la. mooy jur bëre mooy jur bëre ay papa saw yu mu doon tëj du ko tiit. Hmm. saa boo ko daanee xam ne action ko daanee nee du loolu. te su ko sigaatee mu daan si te moo ko wàccee pour bëre. lu mu jël nga nii tailleur la su mu bàyyi tailleur. Siteu loo ko jox a na ko. parce que tuma li nga xam ne nag def ko mérité bugg ko def ci xale. Siteu jàngul bëre fii. ah a jàngatu bëre gars yi di nii ay pul bu ay maa ngi bu ne ko defee. Siteu moo jur hmm. mu ne su a hmm. Hmm. moom loolu la Siteu moom am nga expérience ma ne Siteu nag. non du ma la ko mën ma xam si si a wax naa la dinaa la fekk janvier. bu soobee yàlla ñu yaatal ci waaw mm. mais mais mystique bi moom fi ngeen ko tegoon da ngeen a jàppoon ne Papa Sow ngeen jëflanteeg moom ci wàllu baatin Papa Sow Papa Sow nu ma ko gisee ak nu ma ko Papa Sow man waa Paas laa. Hmm. Moustapha Guèye bale man maa ko yar Paas. Hmm. xam nga lu ma la lamb foofu la jógee. Hmm. soo ko ñëw jox ay Grand Dakar ay Pikine ay karab karab. écrit bi su la Papa Sow jógee fii. bu ma tas sama grand la ma ñu ñoo nekk lii. Papa Sida bii papa la ci moom supporté na ko ba sonn. jënd na tike yu bari pour moom. dëgg la di ko supporté. xam nga lamb nu mu tëddee ñëw. mais su dee ñëw ne nag comme aajatu la rek si da lay gis. dëgg la hmm. si dee du poobar nokos la. ndeysaan. <laughs> daf lay damm supp la. jërëjëf papa. ok thank you. jaajëf. ñu dëpp ko jëj. trop. kontaan kon kontaan naa. li nga ko sasoon def na ko. li ma bëggoon. kon bëgg sas ko ko. kon li nga ko sa bopp kii mu defal ko affaire ba mu bàyyi ko. kon léegi fi mu ne mën ngaa rocc jam sa bopp. fii mu ne nii. déet uh-huh. tey lu ma bëgg a lekk dinaa ko lekk. kon meeru Tarkindaa la fi mu ne. fii Tarkindaa yi meeru Tarkindaa yi ñu ngi toj dëkk bi. arrête arrête e waa koñ bi kaay leen xool e ku ci génnul danga soxor nay leer eh, nay leer wasaare bi li seen def nañ ko loolu lañ soxla woon ci moom gone gi liggéey na am na kattan te jaay na ko doole lii lañ bëggoon tey si na tey bu Papa Sow daanu samay dee barki alxuraanu karim si ta kese amul leneen suuf si.

Siteu, Siteu, règlement, tout.